Cheikh baari Laye Bruce Lee baa ngi noonu Cheikh Bary Bruce Lee kañ ngeen bëgg a gis. maa ngi lay siyaar yow. maa lay fay papa. léegi bàyyi woon nga xaar ba pare ah. acca jël gaaw rek waaw. maa ngi lay siyaar baax. maa ngi lay bu baax jëlal ma ko tuuti. parce que ETDR Events moom la bëgg a décorer nga ni kañ nga bëgg gis. kañ laa bëgg a gis bilaay walaay taalaay parce ñun ay ndaw la ni yoo bëgg a wax ci kañ parce que dafa nekk ku baax. léegi bi pour lan la. tableau man maa gagné ko gagné. maa ngi tableau kanji tableau kanji bi waaw. boo bëggee gis kanji boo ma gisee rek gis nga kanji. si yow nag xam nañ ne yu ñaar moo tax ñu jaar si yow bëgg. léegi loo bëgg a wax. lan laa bëgg a wax leen may ñu jàpp sax ñëpp jàpp sama combat bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di wax na samay morom na ñëw ñu bëre parce que boobu léegi ñoo may daw maa def samay profil làmb ji comprendre nga sa ren bi def naa 3 combats 3 victoire mu ñëw ñu bëre loolu kese laa doon di sant waa yëmbal gépp gëma jóge nag di leen gën maa jàppale de man seen doom laa ko ñu gën maa jàppale nag gën maa jàppale bu baax a baax baax xam ne man champion lay doon incha allah ñoo gën a bëgg jërëjëf jërëjëf incha allah ñoo far waaw booy bi daal nee na kanji la bëgg a gis kontaan nañ ci yow yàlla yàlla def jàmm ayca ñoo ngi lay bëggee ayca présentation drapeau baa ngi noonu présentation drapeau baa ngi noonu ndeysaan di nuyu ñu ni ci ligne bi di commentaire fu waaye mën na ci àdduna bi ñoo ngi lay bu baax a baax a baax a baax sa Sadia Bayo Sis borom dëkk bi Mohamed Sam Mohamed Diallo Fall ma Fall Baye Abdou Ndiaye ay ca présentation présentation Bilal Bass nee na ma ndeysaan laay Bruxelles sama boy la maa ngi koy ñaanal ndam a ah, Bilal ak kon ñu ngi xaar sa mbër mi mais nag ki muy bëreel drapeau Cheikh Niang ndeysaan Cheikh Niang nit ku baax taalibe Sidi Aboubacar bi Sidi Fagay dem ba mi ci jawaar Cheikh Tidiane Niang nekk président Lansar di nit ku baax gisoo père Max Mbergane Max a noonu parce que ñoo bokk Lansar ñoo bokk Tidiane Faye waaye ñoo bokk Siteu ñoo bokk nes mu yàgg ma. non nit ku nit ku nit baax la. nit ku baax la Cheikh Tidiane. ah Cheikh moom walaay nit ku baax la. am ak jàmm ñëpp macha allah moom vraiment nit ku nit ku jo nit ku nit ku jo. sa jaaro bee tax da ngay tikki jaaro ba pare doo ko toog fii <laughs> kër bu ki ñàkkul jaww bu jaaro bee ma jaaxale bu kar wala du ci dara. kees nga mbër la sax. bu kar ki lu mu bëgg a wax. jaay taal la ma gën a niróo la jaay prek. muy bandi bandi lu nii. dama gën a nirool. na tikki jaaro bi. am ngeen ni Poutine Poutine. waaw na si ñu ëpp arme si adduna bi. mais li muy def si suuf moom rek moo ko xam. yaa ngi comprendre. non kër buggi ñaakul coow man ma coow mu ngi nii bàyyi ma woon ko gars ma naaw ma naawtaloon ñëwaat naa lu war a na ma gars yi jël ma bëre ku ñëw baax na calki bi daan boobi du dugg na parcelle am fa ñaari victoire gay barki Seydina Mohamed Boucar waxuma ko pour dara de mais boo yi di bëri xaaj yëpp maa leen barki Seydina Mohamed. borom kayitu dof yi nee na boo di bëri yëpp moo leen mën gën a dof fuuf ñeenti kayitu dof laa bu Fann bu Mbaaw ak bu dalal xel ak bu 36 hôpitalu Maroc bi. dama booy jël ma bëree safara nee na pare na pour may ma sens. bu géej waaw moom ci lunku ñaar la yor ma yor ñaar te culunku la man daama du ma daan maa lay bëgg forme taay fil bi bu bu dee mbër yi mu yi taay fil bi moo leen jaaxal nii mbër bu si ñëw ma géem la maa lay bëgg waa kay noonu la demee fii la ëppee lamba ngi dox moom kenn dootu ko wax kenn mais papa coow li dafa bari CNG dafa war a tëb équipe bi fi nekk nii danoo jeexal ku nekk di génne sa candidat coow li bari na en tant que sage en tant que koo xam ne da yàgg ci lamb di kilifa lan ngay wax ci loolu. mais man li may wax ci loolu ñun loolu waruñu ko sax def coow parce que ki bi nekk ñun teguñu ko fi ministère moo ko fi teg su defee PVM yóbbu ministre mooy xool ndax da koy reconduire wala du ko reconduire bu amee ñoo xam ne nag dañoo bëgg a postuler booy ñooñu mun nañoo taxaw préparer seen campagne ndax ñii seen yëf jeex na waaye des fois di wax war nañ fee jóge wala waruñu fee jóge du suñu prérogative parce que teguñu leen. dafa mel ni tey ji rek ñu ne président manager war na fee jóg te ñi ma fal waxuñu ko loolu moo tax a chaque fois man bu ma du nangu ñuy pensé ci mbir moomu ndax dafa am ko ko moom. su la déggee dafa mel da nga contesté ñi xam ne dañoo bëgg a bira seen jóge fi automatiquement. waaw nga lan moo tax. waaw parce que du yoon. nit boo ko fa tegul waroo wax na fi jóg ki ko fa teg bu xoolee bilan bi mu positif. moom mooy xool ndax war na fa war na ko reconduire wala waru ko mu nekk lu am solo waaw léegi ñu ngi noonu ci combat spécial bi waaw xam naa tur ci kanam incha allah ñu agale kontaan nañ combat baa ngi noonu pour mën nga toog noonu macha allah Boucar combat baa ngi noonu aca combat baa ngi laay bëri Chili macha allah ak Cheikh Bary Cheikh Bary macha allah muy combat spécial. drapeau Cheikh Niang. drapeau Cheikh Niang. bu baax. bis du tuuti borom lay tollool. nu tuddee ko jàmbaar combat bi. Cheikh Bary arrêté ba ci saako. nu tuddee ko un homme battant. un homme bien bâti de valeur d'abnégation et de compétence. waaw ca ñaari mbër yaa ngi noonu. dama ne la koo xam ni mooy président waa Lansar. doomu ndey Max Mbargane moom lañ tuddee combat bi. day responsable école yëpp ñëw gunge ko. responsable école lii det ñëw gunge ko. grand Cheikh ñaa ngi nii toog muy taalibe seex di nit ku baax. kombaam bu fekke dafa taxaw mu ñëw di ko seetaan ne ca plateau li TV war naa mën a dekk. loolu yoon la. Boucar Cheikh Bary. ak Laye Bruchili Laye Bruchili. waaye nag grand Khalifa ko gunge si Khalifa ñaa. grand Khalifa ñëw na. waaw grand Khalifa ku ko xam-xam ko ama seen. Cheikh bu gunge Khalifa war naa mën a nekk. wala Khalifa bu gunge Cheikh war naa mën a nekk. ak ca ñaari mbër yaa ngi. kon ànd dafa yàgg. Mbilo loo Mbilo Mbalo. Cheikh Bary. oh. Bilal nee ma laay Brise Lô mooy mbaram. loolu mooy drapeau sur Bilal Bass borom Colobane. ndeysaan. day jéem Modou Alé Ndiaye borom Arlem Shop Modou. gis naa léegi. borom dërëb ak a faas ci kaw. maa ngi nuyu may mun a borom banaana yi sama xarit. acca ñaari mbër yaa nga ca. maa ngi nuyu may ñaari mbër yaa ngi noonu. round d'observation. day jeex wala du jeex. di nuyu grand Moussa Ndiaye. grand Moussa Ndiaye ñu ngi bu baax di nit ku. foofu sa écurie Langsar. ndeysaan di di di yi si wàllu box. di ndanaan Moussa Ndiaye ñu ngi lay ziar. acca ñaari mbër arbitre bi woote waat na de lu xew. bu avertissement verbal. danoo bëriwul. bëriwuñ. danoo bëriwul. dañuy mbiloo mbaalo. mbiloo mbaalo amu ci solo. te bés bi jàmbaar la. coppet ci bii njong ci bii bii li a bëre. dama ni la. waaw bu doon làmb jigéen jeex na. ma daal ba ba bëgg naa ci fi bal li Balla Gaye di def. danaan la ñëwal boo ñëwul ma ñëw. xeex Cheikh Bari. boo ñëwul ma ñëw. ñaari mbër yaa nga ca. ndeysaan Cheikh Bari laay prisuli. Cheikh Bari laay prisuli. combat baa alaaji Cheikh Niang yal na yàlla def jàmm ndeysaan nabu yan nabu yaa daan man lay way li tamit mbaa jàmm la. nabu yaa da lay way ñetti yoon ci loolu jaaxal na ma ñetti yoon da lay way waaw nabu de nabu yaa daan lii mbaa jàmm se passe waa kii est-ce ko far far ah? jox rek ma ma ma ma màggataale ko benn yoon adduna yàlla ko moom ñaari mbër yaa nga ci laay brisili ak Cheikh baar ak Cheikh Bari maa ngi nuyu sama xarit Cheikh Ñang din El Ñang di nit ku baax Elaj Niang maa ngi lay ziar. amateur bu mag bi laay Boury moo féetee ndey joor xeex. ndeysaan laay Boury Sili secrétaire laay jeex laay Boury Sili dina ko door mu daanu door ko door mu daanu door na ko mu daanu jeex na trois appuis jeex na trois appuis la jeex na trois appuis dafa jeex d'accord ma nit bu la dooree ba nga këpp moo la man nit bu la dooree ba nga këpp moo la man trois appuis dafa jeex trois appuis avertissement da koy jël sortie délibérée nga ko trois Boucar noo ko gisee. dafa suivre man bu doon a tas naa mat si bu yàq tas naa lamb ji a yàq waaw appui la da koo mu daanu. wante ñaari mbër yaa lay la arbitre sifflé waat na. laay buru sili. Cheikh Bary. Cheikh Bary. laay buru sili Cheikh ñaari mbër yaa nga loxo. moo tax muy xeex. jeexaat foofu rek doom dala fa sab loxo. boo Cheikh ñaara dina ko dóor mu daanu dina ko dóor mu daanu kaw dina ko dóor mu daanu dina ko ah, eh. na coup jël na coup na coup coup perdu. jël na naa la. tribune ba jóg na en coup perdu peut être fatal. tribune ba jóg na xeex. oh nee naa la amateurs yi lii bëgg di gis di am satisfaction. drapeau Cheikh Niang nii la war a mel. combat bi nii rek la war a demee. nii la war a demee. gaynde lañ ko tuddee jàmbaar lañ ko tuddee. jàmbaar lañ ko tuddee. nit ku baax. jeexaat foofu rek. du jovial loxo. ayca ñaari mbër daa bëgg a delloo bu mu ca booy booy ga. nit ku am yite si nit grand mu ngay jàpp mbax xeex. mu ngay jàpp mbax fayu. waaw door fayu attention door fayu daa mel napp na ko nag door fayu waaw napp na ko yawu na door fayu ku bi mu jël ko yaa door door mu daan kaawo Cheikh Bari lay brusili kaawo mais xale dañuy xeex rek nañ bëre ana riñaan ana tequ mbir nañu bëre ta bay ana padda ana galgal lay brusili ana fiir Cheikh Bari ana plaqué soxla waay door na na ko laay Bruce Lee Cheikh Bari damay ragal mu dóor mu contre mu daan de loolu mën na si am de barke Rasul laay remise parce que buy dóor xoolu na ko remise de booy bi booy bi xeex lay def de laay Bruce mi xale yi nga xeex la ne jàngal dina ko dóor mu kaw kaw kaw mu miir mu miir mais lamb <laughs> neex na mais grand xalifa combat bi neex na torop torop combat bi neex na torop dafa mel ñu bëgg di gis nga am satisfaction ñaari mbër yu ñamante boole te vraiment ku ci nekk daa bëgg bo combat bi loolu moo tax combat bu neex ku daanu tu n'auras pas ku daanu démérité woo vraiment combat bi neex na neex na amateur yi lii lañ bëgg dañ koy disqualifié daan nañ dañ koy disqualifié non je crois quatre avertissement la amagum wala cinq la dañ koy disqualifié ah dafa mel est que du coup irrégulier ah. da ko def ñaari yoon ok jox nañ victoire.